merci beaucoup Cheikh euh, ci ci ëllëgu Pastef ndax gis nga ni war nañu taxaw ci xool euh, beneen plan donte ñoom jàpp nañu ne Ousmane Sonko mooy seen unique plan. non loolu communication politique la. ay Ousmane Sonko mooy plan A plan B plan C loolu waxu politique la <laughs> waxu politique la. je pense que bu fekkee ni ñoom projet bi parce que man damaa dégg sax ci ñoom bi affaire sud bi di sax éclaté ñoom dañ doon wax naan projet bi du nit idée la loolu la doon wax. comprendre nga projet bi du nit parce que moom intégré nañ très tôt ni Ousmane Sonko day génn projet bi du nit idée la xalaat la yoo xam ne nii même bu nit ki demee yeneen nit mën nañ ko incarner donc voilà mais problème bi nag mooy <laughs> bu Ousmane Sonko génn ci jeu bi qu'est-ce qui va se passer à Pastef pour man loolu la war a xalaat et puis Pape bala ngay bala nga ne am naam ne fa avenir u Pastef ci boppam il faut que ça interroge tu comprends. parti bi ci boppam parti bi ci boppam. il faut que ça interroge. parce que euh, d' abord li ma jàpp mooy parti bi Ousmane Sonko moo ko mën a fédéré benn bu génnee choc des ambitions mooy am kii jaar fii kii jaar fii. mooy li dal Macky Sall. su ne candidat la. exactement kii jaar fii kii jaar fii. ok donc parti bi lu ne mën na cee am mën na tas. mën nañ ko dissoudre il faut nga ubbi hypothèse yëpp lépp mën a nekk. pourquoi tas mën nañ comprendre peut-être. mais dama ni li ma li ma xam li ma gëm man mooy. bu Ousmane Sonko gënee ci jeu mën na tas mën na éclaté wu mën nañ ko dissoudre. waaw ah, d'accord yokk li ma la wax xëy na xëy na xëy na bis dana ñëw ñu wax ci. gëw ma ni. d'accord bu Ousmane Sonko génn ci Pastef am na keneen ku mën a fédéré Pastef man gëw ma ko. d'accord man gëw ma loolu. d'accord te li ma gëm dama ni. Mhm. est-ce que Pastef dina continuer exister comme parti maanaam continuer exister te kenn dissoudre ko mu continuer nekk parti ci réew mi man wóoruma mhm. man loolu gëw ma ko. d'accord mhm. ah bu ma ban ma koy gëm gis ko. d'accord mais mais tax lu tax loolu Cheikh. <laughs> mais non wax ma wax ma ko xam parce que am na dossier judiciaire yoo xam ni ah. am na fa muy àgg. gëm naa ni boo moytul Pastef dañ koy dissoudre d'accord. parce que man sama <clears throat> bo j'ai peut-être mën am loolu mun na am aussi loolu la cest à bi ñu commencé ba léegi. am na lu si ñuy junj te duñ si yegg <laughs> bu ñu naan ay forces occultes ay terroristes ay lii ak donc ça veut dire am na xëy na loo xam ne xëy na la am parce que wóoru ba xëy na loo xam ne ñu ngi togg te bu ñoree mun na entraîner dissolution parti bi donc loolu hypothèse bu nekk la. hypothèse bu nekk la comme aussi euh, bu Sonko bu Sonko génnee xam nga aussi souvent euh, même bu dee projet même bu dee idée nit moo ko incarné soo et puis nit ki aussi euh, charisme charisme charisme ak perception bu ñu am si moom. ça pèse. tey xëy na bu Sonko jógee Pastef est-ce que am na ko am charisme boobu. est-ce que dina am koo xam ne sénégalais yi ñi ànd ak moom. d'accord dinañ am boobu perception si leader. d'accord su boobaa nag bu dee amul. léegi Omar. dafay nekk day na sax. la Omar. te bu la raxee day neex a pousse. Omar su poussé xëccoo am. d'accord mais est-ce que ni nga gisee parti bi yow. Mhm. ak cadre ci parti bi. est-ce que jàpp nga ni am na ci koom étoffe. maanaam am na ci koo xam ne am na charisme bu Ousmane Sonko nga xam ni mën na koo. mën na ko non non loolu bu dee wax dëgg rek la. Mhm. man personnellement gisuma ku am charisme Ousmane Sonko. si parti bi ak perception parce que gaz bi dafa am aussi perception parce que projet lu mu nekk idéologique idéologique souvent nit moo koy incarné soo xoolee par exemple révolution euh, kii euh, euh, révolte kii jongu français contre les les les anglais dogal moo koy incarné incarnation boobu dafa am ay gain politique yu mu si am yu bëree bëree bëri parce que c'était la personne bu doon keneen am ñu ko essayé am ñu loolu mais aussi yàlla dafay may <laughs> jàppi loo xam ne man personnellement gisuma koo xam ne Pastef dina nit ñi dinañ am perception bi ñu am bi Sonko am parce que du ñu am peut-être un charisme bi Sonko am xam nga aussi nit affaire bi du jàng rek. du jàng du jàng mais mënul nekk leader aussi. non non non c'est différent mën nga bañ a mais mën nga nekk leader aussi xam nga leader daa bari soo koy def management y a beaucoup de am na leader boo xam ne leader mooy lal mooy jiite li ñu wax jiite mais leader comportement la c'est-à-dire boo ñëwee nañ dem loolu chef la <laughs> sa leader mooy ko xam ne day inspiré bala muy joxe sax nit ñi xam fan la jëm. d'accord mais loolu mooy leader leader ak chef du benn. est-ce moom rek macha allah parce que ce que je veux dire par là mooy même au-delà de Pastef est-ce que mën nga gis nit boo xam ni yàlla may na ko macha allah li nga xam ni. may na sax xam sax juñ naa ko. Mhm. ma ne tey Sénégal pourquoi ñu bugg a cloisonner vie politique Sénégal entre choix président Macky Sall ak Ousmane Sonko pourquoi. mais day fermer champ démocratique bi. day fermer champ politique bi. tey am na ñoo xam ne man man xamoo laa ko man ne leen tey sénégalais yi war nañu am chance. Mhm. ku nekk. waaye a fël ku nekk a pour loolu am nag il faut ñu génn. ku nekk mais pour loolu mën a am ci càllambaar gi ah, pour loolu mën a am nag dafa am il faut ñu génne il faut pënd bi ruus. c'est ça d'accord merci beaucoup. alors alors Cheikh Yérim euh, wax li nga xam ni euh, coow bi jur na ko. Euh, ci intellectuels yi wax nañ ci euh, télévision étrangère yi am na nu ñu ko gisee mais am na lu mu jur itam biir Touba Mbacké loo xam ni euh, bariwul luñ koy gis dem ba xale général bi génn ci génn wax jël sécurité bi teg ko ci loxo Baye Fall yi egg nañu foofu dem na ba ba général bi wax ni bëggatul ay ay activité politique ci dëkk bi dem na ci ba xalifa général bi ne Euh, kuy voté na nga dem voté ji feneen maanaam bureau de vote yi na génn. loolu itam manifestation yi ak coow Ousmane Sonko Adji Sarr indi na ko. noo gisee loolu yow. lu garaaw la parce que dafa mel dafa am projet boo xam ni liñ ci jublu rek mooy déstabiliser réew mi déstabiliser réew mi bokk parce que nit ñi mënoon def seen politique te du àgg Touba quand même. ñi def nañ politique depuis l'indépendance te dugg ñu ci foyer religieux yi pourquoi Touba tu vois c'est problème. dafa am repère yoo xam daan réew il faut moom ay tabu il faut am yoo xam ni kenn du ko laal kenn du ko wax kenn du c'est important parce que loolu mooy kennu réew mi moo téye réew mi. li ci des nag mooy xalif bi nee na kenn dootul voté Touba loolu mooy lañ Touba daanaka mooy deuxième foyer directeur bi ëpp doole ci Sénégal. Mmh. ñu ngi wax trois cent mille presque électeurs. voilà. léegi loolu boo koy boo ko bëggee déployer tey est-ce que élection redéployer est-ce que élection dina mën a am 2019 man loolu mooy sama problème parce que soo nalee réorganiser waat corps électoral bi noonu réaffecté waat électeurs yi redéployer ko jàpp ma ni élection dina mën a am février deux mille deux mille vingt-quatre mais li nga wax ni am na ñu koy junjudee. lu jëm ci par exemple. no euh, non li ma la report élection présidentielle. dama ne la bu du jóge ci loolu. dama ne bu fekkee ni da nga war a redéployer. waaw corps électoral Touba. waaw réfectoire yëpp créer des bureaux de vote. Mm-hmm. yóbbu citoyen yëpp. tu comprends ba pare sensibiliser leen jox leen defal leen de nouvelle cartes pour nouveau bureau de vote loolu élection du mën a am en février deux mille vingt deux mille vingt quatre. mais du ne jàppaloo mu nekk argument ci report bi ñu bëri di di di ruumandaat. ah xaw ma argument am la de mais encore concrètement laa wax de su fekkee ni lii xalis bi wax dañ ko nar a def. Mhm.